mbaa yéen a nga ca libération ne en tout cas awa Diop ak naataangoom ñoom ñëpp ñu ngi ci kaso bi ndax mandat de fëgg te doyen des juges moo fa jaar yëgle kaay bi ne Cheikh Omar Biteye Amath Biteye Abdourahmane Mboup ak Ahmadou Fofana ñoom ñëpp ñu leen jàppee ca Malika fukki fan ak juróom benn ci weeru avril gi ñu kenn kat jate ñu ngi jàppee ca Golf Sud te ñoom ñëpp seen bëgg-bëgg moo doon indi nu gu rëy ak taal ay bëri ci Sénégal wàllum ca Kaolack Ndeye Awa Diop di responsable pasteur bu Kër Massar moom la ñu mujjee waral du leen lu ay jokkalante ci kaddu ci téléphone yoo xam kon amaloon na ak Cheikh Omar Barji ak ay transfert d'argent yoo xam def na lu toll ci ñeenti millions lii libération yamu ca ndax nee na tasaru bi di Babacar Touré moom tam fëgg nañ contrôle judiciaire te juge bu deuxième cabinet daal moo fa jaar niki témba libération enquête mu nu ubbi ginnaaw Fatou Awa Ba mbir mi daal doy na ndax waa nga xam ne Pierre Dione mi ñu kon gis néew bi la jàpp ne lu ji njaag mooma te moom waa ji dem na ba ku faat ni dañu war jël sa bakkan maanaam appliqué peine de mort amoon ci réew mi yëgle kaay bi ne moom Pierre Dione mi nag waxtu yi mu ngi ci loxoy yoon libération yéen kaay naan maan boobu doyen des juges ma nga jébbal juróom-ñeenti mandat de dépôt nee nañu dañoo yoroon li ñu duppee ay cocktail molotov ñoom juróom-ñeenti ñëpp ñu daal leen di yóbbu kaso toppee leen nag juróom-ñaar ci mbir yoo bokk na ci wàllub terrorisme taskatu xibaar bi di Babacar Touré yéen kaay bi naan maan mi ngi cib contrôle judiciaire libération yéen kaay naan maan réew mi du def lu ne weng moo am ca ma kumba soxna yi seet nañu ba seet waaye jonn waa ji am ñeen fukkat ak ñaar soxna si njëkk defuk interview te naan peine de mort na dikkaat ci réew mi yéene kaay bi naan maan enquêteurs yi seet nañ ba seet nee ñu moo ko faat ndax nag waxtu wa awa ba di faatoo ca guddi ga téléphone am borne na foofee dikkaat na fa ay yoon yoon téléphone am borne te bi ñu nee suba la néew bi di feeñ xaaja guddi la wax xaritam nañ ànd ci àll boobee xarit ba bañ ca suba sa la fexee ba ñu gis néew bi mim na yéene kaay bi naan maan waaye daal tàbbal nañ ko kaso